mbégte la am yeen Dakar 24 di ci site d'information bi am bu émission baax émission bi nga du genre la ci li nga euh, médiatique euh, sénégalais bi rawatina site bi nga Dakar 24 émission bi ñu l'info en face may fàttali ne ñu ci en collaboration avec euh, télévision Leral TV may am mbégte ak bànneex bu mag euh, pour la première fois ak ndortelu émission bu bees bi ñu koy tourner fii ci Kaolack d'autant plus may am plaisir également ñu koy démarrer ak une femme parce que am na benn dicton bu tout ce que femme veut, Dieu le veut. Donc qu'il en soit ainsi pour la pérennisation de cette émission bi nga maintenir, ni dañu am plaisir bu baax a baax que ko def ak Lobé Lam Ndey Lobé am nañ mbégte bu baax ci Dakar 24 ci émission bu yes voilà Babacar maa ngi lay nuyu vraiment di le remercier. Euh, di nuyu aussi ñi nga xamanteni seeni seen téléspectateur ak seeni i lecteur bu baax euh, ci li nga xamanteni moy seen émission bu am solo bi nga xam mom ngeen deugmal deugmal ko ak man. alors may fatali ne yow ya ngi ci mbirum politique bi yaay responsable d'ailleurs des femmes ci mouvement and defar kaolak di ADK bi nga xam le président Serigne Boub moko jité mais alors li tax ñu déplacer wu Dakar ñëw kaolak fi moy semaine passée dañ la gis ci internet bi. mais euh, peut-être que femme bi ma gisoon euh, du ma ne un peu virulente mais un peu imposante ci ay idéem euh, c'est un peu différente femme bi ma gis ma jàkkaarloog moom wala da may may batma rek ñu dugg ci mbir mi wala nu mu demee noonu. <laughs> waaw xam nga yaa ngi may fàttali sama benn euh, xarit ci kuréel yi ñu bokk uh-huh. dafay wax ne ndeylo bi xool ko mais c'est de l'eau qui dort dafa mel ni ndox mu ndox mu sedd muy rey teeñ la voilà boo ko gisee da nga naan kii moom macha allah uh-huh. euh, dafa dafa noppi dafa kii ak yi uh-huh. mais je sais bien défendre mes idées absolument alors euh, kon ñu dugg ci biir waxtaan bi voilà li li li gën a motiver émission bi mooy euh, dañ la gis nga def benn sortie médiatique boo ça a été vraiment repris par les différents organes de presse de la place alors euh, ci défense bi nga jël ci Serigne par rapport à des attaques dem nga bay citer nommément des personnes yi nga xamante ni pour yow ils sont là que taper dans l'ombre ngir yàqal président Serigne alors qu'est-ce qui se passe lan modi di problème bi à Kaolack yen euh, vous vous sentez menacé wala da ngeen gis né dañ leen bëgg a contrecarrer ci li nga xamanteni concurrence déloyale la ci course bi nga xamanteni yen yéen a koy mëne vers la mairie de Kaolack. Euh, wa Badara vraiment dama lay remercier ci question bi euh, mais dama lay wax tuuti Kaolack Kaolack dafa am ay politiciens yo xamanteni dañu fi nek suñu xamé né yaa ngay uti lañ soxla danañ la tam dëmm xas la saaga la jébaane la ba nga wàññeeku ba nga ragal ba doot ci dugg lii ma lay wax nag na nga xool année yi paase ak ñi nga xamante ni bëggoon nañ dugg ci langue politique bi te ñu bokk soit de la société civile wala ñu nekk ci yeneen camp bëgg ñëw ci seen bokk moomeel ñu taxaw fa mais attitude boobu lañ am loolu na li ñuy wax rek mooy ñom ñi jiñaate dëmm war nañu xam ñan lañ war nañ leen war nañ xam ñi jiñaate ndëmm ak xasté ñan lañ et qu'est-ce qu'ils ont fait pour Kaolack alors que Kaolack les a tout donné ñi nga xamanteni ñu koy xass cité nafi fi kaawu ki nga xam ni Moussa Fall li mu xas yëpp président diko wax ba pare li ma si gën a nit ñi ak li ñu foog ne ñun sen sen niveau de responsabilité mais information bokoy koy joxe da koy vérifier da nga koy xol balang ko tassaré suma déggé ma déggee ñenn ñi naan waaw cœur de ville sen ki bi jeexna nangam ak nangam euh, sen ki bi waruñ ko woon amuñ ils prennent même pas le temps de s'informer mm-hmm. et c'est ça le mal ñom li ñu leen war moy bala ngaa attaquer nit da ngay vérifier mm-hmm. li nga xamanteni mom ngay doxal soko defé defee nit ñi xamné ñi kat kenn mënu ci téggi dara peut-être don na kii mais ñukoy koy attaqué ñan la ku ci melni récemment ma sœur Awa je vais le citer. parlementaire. parlementaire. Mm. Awa ñaata at mi ngi au perchoir ndax mëss ngeen ko gis à l'Assemblée nationale mu taxaw au perchoir di défendre les intérêts de Kaolack ndax mëss na en tout cas mandé à ama ah, Euh, si sama li nga xam ni maa ngi koy seetaan yëpp mësuma ko gis ñi nga xamante ni les euh, kii euh, député yi nga xam ni ñoo nekk Kaolack di défendre Kaolack di ca kii di ñëpp ràññee nañ leen ñu nekk ci yeneen région yi. di ko def elle a été vice présidente xoolal niveau de kii de responsabilité bi. mais au delà de défense bi nga wax ne amul est-ce que amul des des activités wala des actions yoo xam ne mën ne ko envers Kaolack. man de yëguma ko. su ngeen ko yëgee nag peut-être doon jox leen ma information bi yëguma ko de dëdd lépp mi ngi fi Awa Gueye qu'est-ce qu'elle a fait pour sa commune qu'est-ce qu'elle a fait pour son quartier moto pompe yi mu joxe daaw daaw président Serigne a ko jënd moo ko jox ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni peut-être ñun dañuy dañuy noppi waala rek ba ca affaire ba ba ca cappaandal ga bu dakkul ñu génne te lépp luñ ci génne dañ ci duut baaraam de guerre ah oui bien sûr ñun n'avons duñ attaqué kenn duñ xas kenn duñ saaga kenn waaye nag ah kii si fraude civique. ah mais nak, mais nak, mais nak, côté bob, dama lay interpeller parce que Serigne taxaw na fi dem ba wax euh, je me rappelle ci cérémonie guerre d'or bi ne il invite même les autorités ñu faire signer ben charte boo xamante charte de non violence là à l'endroit des protagonistes ils sont à la conquête de la mairie de Kaolack mais yow ça ça ça va un peu au, déphasage des propos de Serigne bu le la yo, yow sorti sortie bi nga def oh, non non non rien du tout amul dara y a rien de contradictoire dans ce que je dis dama ne. ki si frotte s'y pique Si vous kay vous nit ki saaga dara du jip waye nak défense non non non non non wa bien sûr ñun ku ñu attaqué ñu attaquer la parce que on a toutes les informations te dañ ci tok waxuñ kenn dara suñu neexoon xey à longueur de journée taxaw ci télé taxaw ci télévision bi di xas kenn ku nekk waye ñun defuñ lolu dañu xamné élection locale la doomu gox yi ño ca wara dem képp ko xamanteni sa gox ñor na la war nga ca sob sa loxo man dama ne nit boo ni sax duma politique bëgguma bu élection locale jotee da nga caa war a suub sa loxo parce que la fay xew da impacte directement waaw parce que la gestion d'une commune mais commune bi la ak yow yow nit ki euh, citoyen bi ak sa commune la donc da ci war a intéressé wu jàppale commune bi mu jàll mais aussi soobu ci ba lépp lu koy yàq aussi nga war ko freiner waaw ñuy wax ne ñii nii di lim nii ñëpp man conseillère municipal, je l'ai dit oui bien sûr. je l'ai dit euh, il y a quelques jours dans une radio, Nena, man je fais partie des rares conseillers yoo xam manqué mësuñu manqué session alhamdulilah. mësuma pas manqué mais absenté ici ici yëpp mais mais ça devient intéressant si vous yow euh, euh, conseillère municipale donc autrement dit vous dañu bëgg wax terme mais vous êtes comptable du bilan de l'actuelle équipe. Oh, j'assume. conseiller municipal là, quand on parle d'une équipe. absolument c'est l'équipe su Safano, Safano tu t'es remarqué lors de cette législature là. au nom de la solidarité de l'équipe mais man conseillère municipale ci biir mairie la commune Kaolak, bi mais ñëpp xam nañ Ndeye Lobé je défends mes idées jusqu'au bout Les plus je war a wax danaa ko wax su en 8 ans ben yon, laa mës manquait conseil en 2018 Ben yon, te c'est pour des raisons de maladie Nous, ñi ñëpp di xaste di c'est des conseillers et des conseillers Quel mësu ci ñëw keroog installation installation bureau ba ba ñu doonul maire doonuñ adjoint au maire kéro liñ gëj maire yi li ci gëna grave su fekkone ne dañu dañu dañu dañu bëggul siéger mën nañ démissioner lool moy li jaadu yow bu fekkee ne sa commune daf la tànn wala liste yi nga xamanteni ci nga bok ba doon ba ñu tabb la nga doon conseiller municipal certes xeb nga ko ci sa niveau mais démissionnel, jox kenen c'est de la place parce que place bobu nga occuper commune bi soxla na parce que ñun ay organe délibérant lañ dañoo war a xale xelal maire teg ko ci yoon wi xëy na boo fa jógee ka lay remplacer mën na fa am njëriñ daf ko fay am sax amal fa njëriñ li nga xam ni mooy commune ba mais defuñ ko xam nga pour quelle raison mm-hmm. ma wax la ne la mm-hmm. gis nga ces miettes laa li ñuy am maire yi ay ay nu ma koy tuddee ay secours ak ay xawma lan tabaski

war nañ war waratoo faa teg te bon bu len leen dàqoon tay duñ taralang ci ay liste mm-hmm. dégg nga alors allez-y allez-y voilà loogu loolu yep ñuy wax né mm-hmm. ñi xasté ak djébané euh, lu ne ci dugg lima ci gëna a rusloo mais dañuy dugg ci ay domaine yo xamné duñ ko maîtriser Awa Gueye ni toll nek vice président assemblée nationale nga ñew taxaw ñuy wax nga naan contrat cœur de ville jeex contrat cœur de ville ku ne xam na ñi picc sax soo duggee ci internet bi war nga ko caa mën a gis ba xam ne vingt cinq ans la Ablaye Wade bi bi mu fi bi mu fi bi mu fi nekkee léegi sax matul vingt cinq ans ba nga naan jeex na moom su taxawee di wax lu mel noonu naan moom lañ war a laaj bilan mais Awa Gueye qu'est-ce qu'elle a fait pour kaw Kaolack loolu lañ ko war a laaj moom qu'est-ce qu'elle fait pour kaw la En deux, législatives. En deux législatives. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Kaolack mais est-ce que n'est pas trop dire dilater qu'est-ce qu'il a fait que Mon quand même. mais peut-être que vous êtes plus informé que nous. en tant que natif et résident de Kaolack également. vous êtes de la presse non Vous war nga la autant qu'ils sont ils se disent responsables ñëpp di kii fii président taxaw wax ci affaire port bi dragage port bi mm-hmm. non seulement gisuñu leen ci bataille bi mais information sax waroon nañ ko mën a jox population bi ils nous doivent ça war nañ taxaw xëy na ne lii ak lii ak lii peut-être moo tax draguer wuñ ko ba tey à la place du président mm-hmm. ça n'a pas été fait parce que Kaolack ñoru leen seen bopp moo leen ñor mm-hmm. fi mu ne ils se sentent menacés li ñuy tiit mooy li leen tiit mooy maintenant la communauté la société est en train de prendre sa chose Nous, sommes Sen politiciens nous di leen Car si vous avez bu nga 2000 t shirts wala xartum di leen d'un lieu à un autre les gens en ont marre dëkk bi dafa mettre ban ban ban offre politique ngeen indi tay bu bu bu bu différente ak bi ngeen wax parce que tay ji sénégalais dem nañ ba ci sen intérieur ñom lool lañ gëm c'est-à-dire euh, ma bouger tant que joxuñu ma xaalis joxuma ci seg yeen est ce que tay ji yeen offre ngeen offre politique bo xamanteni c'est différent de celle là mu wor na leen li ni mëna convaincre nit ñi ñu and ak yeen ci lool badara parce que on dit on d'accord je suis pas d'accord non je suis pas d'accord mm. que booy wax ne nit ñi dañ ko gëm gëmuñu loolu. Mm. c'est parce que xam nga nit gis nga vulnérabilité dafa doy waar. ñoom dañuy utiliser sa vulnérabilité pour exploiter la te loolu foofu la mettee nga fekk nit koo xamante ni leer na ko ni suba ba ngoon la muy jaay peut-être 1000 francs la ca am. Mm-hmm. nga ne ko kaay ma jox la xartum xëy na amut ca lum ca jëndee mbubb wala kii nga jox ko xartum pour moom xartum boobu ma ngay xalaat bu amee xew wala kii mën ko caa sol dégg nga nga dig ko dara jël 2000 jox ko. mu mhm. mi ku daan ku daan yendu ba ngoon 1000 francs lay koy mais da lay topp sans doute mu xam la muy def lan la mais nag ñun aussi ñoo ngi am beneen rôle bu ñuy def. Mhm. di sensibiliser la population. wan leen leen ñii nga xamante ni 1000 francs yooyu ñu ngi lay jox ñu ngi jàpp ci seen bopp ne. ñu ngi lay jënd te boo nangoo ñaar téeméer yooyu pour moom wàccoon ak yow mm-hmm. bu la defalul dara waxalu la défendre la pour moom sa kart da koo jënd. bànneexu juróomi at yoo xamante ni da nga cee daw te doo koo gis ñun ñëpp xam nañ li nga xamante ni moo fi xew. Mm-hmm.

Je suis dans le milieu du développement politique je ci dugg du par accident mais par devoir en 2014 C'était la première fois que j'ai suis tâté terrain bi la ma doon wax démb ci terrain bi ci développement vu que la politique le développement n'ont qu'un seul pas et que de yi dañuy dañuy motali wante ku ne day motali sa morom. su sellee. su melee na nga xamanteni mom la wara mel. tout à fait alors euh, Ndeye be ñu terminer rapidement C'est vrai que euh, euh, yaangi Sogu soog dugg ci politique depuis 2014 C'est vrai que Serigne bub aussi c'est c'est un homme d'affaires ci développement lañ ko xam. mais est-ce que yaakar nga ni ce qui est valable wala ce qui ce qui ce qui réussit Serigne bub ce qui réussit sur le plan de développement wala wala business ça peut réussir sur le côté politique parce que c'est deux champs qui sont un peu différents il faut le dire. moi je ne vois pas de différence. Hein? je vois une complémentarité. la politique c'est quoi c'est là de gérer la cité le développement c'est quoi c'est faire en sorte que améliorer conditions de vie est-ce que ceux qui sont là non voilà mais mais mais entendement Nous, côté bi nga mhm. la politique politicienne ñu waxuñ loolu mhm. dañuy wax la politique bi mhm. donc loolu fay épouser qui le développement parce que loolu ñaar lañ mu ndax moy motali bé ndax soo damay def développement té défo politique loi et règlement yi nga xamante moy mooy lay permettre nga mëna développer lolu mais politique mokoy koy indi. donc forcément foog ñu and beneen bi moy ñun dañu am offre politique bo xamante am nañ ko so xolé d'abord ci composition liste bi nga xamante mom duma né il y a des médecins il y a des hommes d'affaires il y a des, des, industriels. tous les segments de la société. ils n'ont même pas le temps de faire la politique politicienne. dafa mel ni ay erreur lañ am. des politiciens professionnels. comme ñi nga xam ne dañuy dundee politique nga xam ne bu bu bu politique amul ñu ñu yenu seeni loxo di yuuxu. donc du ñooñu dañuy dund am nañ yeneen ressources yoo xamante ni xalaatuñ lii sinon xalaat naka lañ ciy participer en tant que doomu Kaolack. parce que fi ñu toll nii Kaolack dafa feebar te ku ne xam na ko Kaolack occupé woon na euh, euh, rang boo xamante ni Sénégal.

ñoom xamuñ ci kii yi dara daanaka lu ñu fi tubaab bi bàyyi rek lañ fee fekk donc jusqu'à quand est-ce que maintenant dañ ko war a bàyyi ci loxoy ñi nga xam ne ñoo jëriñoo Kaolack rek ñi nga xam ni war a jëriñ Kaolack nekk ci biti au lieu ñoom ñu jëriñ Kaolack ñoom ñoo jëriñoo Kaolack fu nekk dañ ñoo occupé les postes de responsable ñooy député ñooy maire ñooy fu ne ñooy bu poste député jógee te lan lañ fi defal Kaolack man damaa foog ne damay jël exemple ci Saint-Louis parce que dañu def loo xam ne lu la convention saint-louisienne bi ñu koy wax boobu temps ak ay almami Mato Fall ak ñooñu lañ daan def mooy bu Saint-Louis soxlaa doomi Saint-Louisien Saint-Louisien yep jóg taxaw nek benn bloc du am coloration politique ñu taxaw ci seen kiiw bopp Saint-Louis lan la ëppale Kaolack sinon Kaolack au moins su ma sax ne

alors deux petites questions ñu terminer bi si njëkk mooy wàcc ngeen ci terrain bi vous avez un peu tâté le poule euh, daal di ngeen frotté wu ak population bi li ngeen gis dal na xel seen candidat produit bu neex a la. réaction yi yëpp ki jàkkaarlool la. nee naa leen Serigne Mboup ku jàkkaarloog moom ku ne boo tëddee doo nelaw loolu moom lu ma la te nag y a des gens qui sont déjà fondus comme du beurre te ñooñu loolu lan moo ko def ki ñu jàkkaar loola tax moom xam na li mu doon xam fu mu jëm Sénégal xam nañ kan mooy président Serigne Mboup ndax gis nañ ci période Covid bi durant toute la Covid mom il a été le seul boo xamante ni média bu ko invité beneen invité waat ko. Mm-hmm. parce que xam nañ ne sur le plan économique non seulement te loolu du samay wax waxi président Macky Sall la. moo ne la vous avez une capacité de résilience exceptionnelle Lo xamante Sénégal gi yëpp. xool nañ loolu ci moom te boo xoolee ci Covid bi yëpp bari na ay entreprise yoo xam ne nërmeelu na waaye au moins moom mi ngi taxaw ñu ngi fay am na ci koo xamante ni sax barki démb maa ngi koy dégg mu naan salaire kii yi dañu non man cest à dañu ni olof ngeen baal ma du terme dañu jëfur fi ñu toll nii parce que tiit nañu tiit nañ ci ki nga xamante ni jàkkaarloon nañu population bi ñoo ko bëgg def ko ci seen xol te ñu ñëpp moom lañ jublu loolu nag <coughs> sondage yaa ngi fi ñoom ñing ci terrain bi gis nañu loolu yëpp ta nak seen cartable yi ñuy wër di jëm di joxe danañ joxe nit ñi dinañ ko lekk parce que am nañ ci wàll mais bu ñu yeggee ci mbañ gàcce bi danañ xam ne lépp dëgg la. dernière question Ndeye Lobé au soir du 23 janvier soo ma doon jox rendez-vous ñu daje fan ngay bëgg ma ak yow wala fan nga naan ma laay ak yow. ma ne bu soobee yàlla bu ñu fi yàlla bàyyee ba ñu kii fa. au soir du 23 fekk ma école Ndangaan Ibrahima Seydou Ndaw man falaay laay voté dinaa la woon ne jigéen ju man góor laa. di leen remercier yéen surtout. Euh, ci invitation bi et tout ça. vraiment di gën a ñaax rek sama mbokk jigéen ñi. te xam ne ñoo gën a vulnérable. waaw qu'elle s'engage davantage. ki nga xamante ni nag fa nga toog sa kër bu leen kenn bu ñu nangu kenn di leen yóbbu fenn. mais ku la fekk sa kër. Mm-hmm. duy maletam ba mu fees yëkkati lu mu la jox jëlal. amal amal fu non non non ñun dañuy jàngal nit ñi ni ñuy nappee. ñun dañ lay former dañ lay former ah. dañ lay financer dañ lay accompagner ba nga taxaw ñun loolu lañ xam. Ah. waaw. Ah, ñun voilà ñun. <laughs> madame merci beaucoup vraiment merci nous ngi leen di gërëm di gërëm sa caméraman bi Pape Diop bu baax a vraiment di gërëm ci invitation merci beaucoup en tout cas merci à elle de nous avoir euh, ouvert ses ces ces portes hein accueillir euh, premier numéro émission bi di l'info en face ici Dakar 24 ñu si euh, lëkkaloo ak télévision bi di Leral TV gërëm ko sante ko ma fàttali ne moom mooy Ndeye Lobel Lam mu ngi bok ci mouvement ànd defar kaolak ADK nga président Serigne Momoko moom moo tête de liste proportionnelle également fichi ci commune bu Kaolack gërëm ko également Pape Diop à la réalisation de ce premier numéro d'émission bi nga xam ne fii ci Kaolack Ndangaan lañ ko tourné gërëm euh, rendez-vous prochainement avec euh, un autre acteur politique bi nga xamante ni mu ci euh, politique D'ici là, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup et restez fidèles en compagnie des programmes de Dakar 24.